mbokk yi seetaan fu ngeen mën a ne ci réew mi ak ci bitim réew noo ngi leen di siyaara baax a baax a baax niñ ko baaxoo defee ci seen télévision ma Mafatihul Bichri jiital ci ku ñu ci baaxoo jiital muy borom Touba Serigne Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir moom mi nga xam ne dogalub yàlla bi tey mooy euh, moo fi nekkal Cheikhul diim te mat ko sëkk nuy ñaan suñ borom guddal aw fanam te yokk ko ba naalam yu mat yi naal nga xam ne moom la naal. mu yeggale kook sagoom te ànd kook taalibey sëñ Tuubaa yëpp noonu la ñuy yëkkatee wàccuwaay nin ko baaxoo di defe jox ko ko ngir mu jotalal nu mboolem këri diine yi ak lislaam bi yëpp eh, fépp foo xamante ne bii eh, taalub jàngoo nga fa noo ngi yëkkati li nga xamante ne bii mooy seenub siyaar di ko jox sëriñ Muntaxa ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir bu nu foo jógee nag di siyaare mbokku téléspectateur yëpp tey feddali sunu kóllëre ak ñoom te di leen ñaanal sunu borom defal leen jàmm ju sax dàkk mbokk yi nin ko waaxoo defee rek lépp loo xam ne yitteel na diine ak lislaam rawatina nag mu ñoŋal kër Cheikhul Khadim télévision mu Fatihul Bichri def cëb liggéey moo tax bokk yi yéen a ngi en direct fii may waxee ak ci université Khadim Rasoul bi nga xamante ni bii euh, jàmbaari Cheikhul Khadim ji euh, di Serigne Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir moo ko amal ngir mboolem loo xam ni feeñal la xam-xamub Cheikhul Khadim Euh, ca nañ ko war a feeñalee euh, ngir xam gu mu xam ni euh, Serigne Touba jàmbaar woon joo xam ni diine ak lislaam ak xam-xam rek moo ko ñoroon Serigne Mountakha xam loolu boo tax bi mu toogee naalam bu njëkk mu naal mooy mu ubbi l'école boo xam ni dañu fay jàngale xam-xam di fa jàngale diine di fa jàngale téere yi Cheikhul Xadim yi waaye nag xasidaam yi nga xam ni moom la bind. Euh, loolu nag euh, ki nga xamante ne bii mooy Serigne Mountakha euh, bi mu ko naalee yoonu murid yëpp wuy si ko ci mu ànd ko ak ñoom tey jii nag di bis bi nga xamante ne bii ci lay teg xeeru université boobu ngir ñoŋal liggéeyu Serigne Touba bi ci xam-xam ak ya ca aju mbokk yi moo tax fii may waxeeg ak yéen waxtu wi temb kilifa yi noo ngi ñëw di bàyyikoo ci kër yëpp mboolem foo xam ne kër Cheikhul Khadim la kilifa yaa ngi fay jóge di wuy si Serigne Mountakha ibnu Cheikh Mamadou Bachir ah, ci liggéey bu am solo bii nga xam ne moom la naalal Cheikhul Khadim ah, te lépp jëm ci xam-xam ah, ak xamle njàngum Cheikhul Khadim waaye mbindam mu yaatu mi nga xam ne mboolem foo xamante ne bi xam nañ ni Serigne Touba ma nga fa woon rek la mu fa nekke woon mooy bind waaye la mu fa nekke woon mooy liggéey xam-xam ci boroomam loolee nag la Serigne Mountakha xam ba tax mu ne yooyu naal da koy feeñal fësal ko muy liggéeyub Serigne Touba bu wér Ah, loolu moo tax bokk yi ni ma ko waxee léegi bi nu xëyee itam ubbee nañ ko alquranul karim di ab lim bu takkoo takku léegi rek la ñu jàng ah, xatnu bi ah, macha allahu rabbi lim bi ñu fi jàng nag dëppoo ak ati cheikhul xadim yaakaar naa ne loolu tax Mountakha def na ci liggéey bu am solo solo solo bokk yi nag moo tax ni ma ko waxee woon léegi gis ngeen léegi njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp ñoom itam ñëw nañu léegi yéen a ngi koy gis. ak mbooleem këri diine yi ni ma ko waxee woon léegi ah, fenn fu nekk nag yëkkati nañ seen wàccuwaay jox ko Serigne Mountakha ngir ñëw ànd ak moom liggéey bi. Ah, ginnaaw njàngum alxuraan mi nag fii may waxee ak yéen kilifa yooyu ma wax ñoo ngi ñëw bàyyi ko ci ay gox yu fasanti ko ñu leen di dalal ah, ngeen dégg njàngum xasida mi nga xam ni isbu tarxiya mu ngi koy jàng waaye tamit nag. li nga xamante ki nga xamante ne bi mooy Serigne Cheikh Mbackeem Serigne Abdou Latif mu liggéey bi moom itam euh, euh, euh, jiitu fi sëriñ bi nekkal ko fi ba keroog nuy gis sëriñ mu ibn Cheikh Ahmadul Bachir ak njaboot gi mu war a àndal yëpp mbokk yi kon noonu laay def rek bàyyi leen ak programme bi macha allahu rabbi nu wéy ànd koog yéen fii nga xamante ne bi mooy université Khadim Rasoul ci nekkuk sëriñ Muntaxa mu mu mu am yéene feeñal liggéeyub sëriñ Touba yàlla na nu ko ànd ak moom.